jëf euh, amit téléspectateur people 221 yaa ñu suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaat mbégte jàkkaarloo waat ak di nuyu sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada yi euh, tey nag ñu dalal sunu benn frère muy Thiat Seck euh, kenn dootu ko présenté ci réew mi ak ci bitim réew ku ne gis na li nga xamante ni moo xew démb feenee ci cosaan tungu na nag du teew ñu ne daal frère dañu la bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. waa salaamaaleykum maa ngi ziar waa Sénégal gépp di bëggee télé bi di bëggee gi. Mhm. moom sama frère la dañoo yàgg. te démb la. lu yàgg dëgg la. lii ma jàkkaarloo moom du hasard. Mhm, dëgg waaw ndax moom sama frère la yàgg maa teral. yàgg maa dooleel. kon nag suma jàkkaaru telem bi mhm. sama xol day féex. ma nekk ak Idi Barou ak Mbaye Dollar Idi indi ma kër délégué Mar maa nii kër délégué Mar di ko ziar di ko bége. Mhm. ndax nag su ma ñëwee kër délégué Mar tey ah sama kër laa ñëw. ndax délégué mar nag wax dëgg yàlla ñoo bokk luñ bëgg suma frère. Hmm. ma ñëw mu sañsel ma. Hmm. jox ma ay jox ma ay olof ba lii ma sol. Hmm. ak bi ma woowee tey si fajar ndeysaan dama am xamul ne Idi ma nekk këram wax dëgg yàlla ñoom ñaari dend moo tax yàlla pare na. kon nag su ma ñëwee kër délégué sama kër laa ñëw kon nag maa ngi bëggee fan di bëggee soppe yi di am mbégte di bëggee mbay dollar sama xarit moo ne moo frère di kontaan samay soppee di ñaan jàmm yàgg yàlla na jàmm yàgg ci barke Cheikh Ibra amin may nuyu sama frère boobu di délégué Amar. Mm-hmm. taalibe taalibe Serigne bi. Mm-hmm. moom sama xarit la sama frère la. nekk ku baax ku disponible tamit ku jàpp ci liggéey bi. Mm-hmm. Euh, Thiat li xew démb ñëpp gis nañ ko bal maa ñëw ci li xew euh, lan moo la yóbbu ci soirée ba da jot invitation wala da nga dem en tant que boo xam ne comme ni nga koy defee rek demal ñëpp. waaw man li may bu soirée Pape dama toog kër Idi Baro sama soxna nekk fa këram ma nekk fa ak mbay dollar tey ñu seetaan kilibu uh, bu Wally yi di ko seetaan kilibu bu yi bi koy seetaan ba ba benn heure bi ba album Wally Seck yi jeex muy déglu yëpp yëf yi neex lool ma jékki-jékki Idi na ne nañu teg uh, soirée uh, album bi ñu tegee albumu Wally après ñu Idi teg tamit. albumu Waly Seck albumu Pape Diouf yi hmm. ma koy déglu daan ne waaye Pape Diouf man gëñ naa soirée am de mbay dollar idi baro ñoom ne ma tey sax day tëgg ma ne fan ñu ne ma ca fële cosaan waaw nañ leen dox dem dama ci soirée Pape dama fa war a dem ndax suma mag la te musuma musuma def lu ñaaw musuma def lu ñaaw te nag wax dëgg yàlla nee na ndaanaan mooy jug di fekk moroomu ndaanaanam loolu rek moo fa yóbbu waaw ndax Pape suma mag la suma kilifa la hmm. moo tax rek ma dem soirée du dara hmm. loolu la rek moo fa yóbboon pour ndaanaan mooy fekk ndaanaan mm-hmm. te Pape suñu a doxantu seetaan rek mm-hmm. bu ma waree way way su ma warta ne waruma way rek dem ñibbi mm-hmm. loolu rek bi nga ñëwee nan lañ la euh, accueillir bi ma ñëwee dama ñëw ci porte bi ñi a fekk ci porte bi ma ànd ak ma nañ six personnes dama ne nañ ñenn ñi xaar ma ak ñenn ñi pour am xel ñi si des ci biti ndax nag bi ma ñëwee ñi ci porte bi dañ maa war maal ñi ma fekk ci port bi rek wax dëgg yàlla ñoo bàyyi ñu dugg. caat eh, ci loo ne na mën nañ la kañ nga ñëw fii nag joué ma leen léegi rek kan ak kan nga àndal ma ne ñeeg ñu ñu ne dugg leen. ñu support bi wax dëgg yàlla mu rafet lool. Mm-hmm. bi ma duggee dem Dembawaar bi ñu taxawee suuf di saan nañ dem si VIP bi bi ñuy dem VIP bi ñu téye si porte bi porte VIP bi. Mm-hmm. waa ji mel na ku ma xamul ma ne garaawul xam naa dañ ko daa ci liggéeyam rek Dembawaar mbay mi jëli ko ne dañoo bëgg a jaar dem ci VIP bi pour mën a caat. mën a aisé foofu mën a seetaan boo waree yëg bëf bëf dem ci dem Demba bàyyi lépp lu mu doon def nag Demba waar ku baax. rek mhm, daw ñëw wax ak bi ne ko caat sekk ñu xamoo ko bàyyi ko ma dem kii kenn du ko téye waa ji daal ne ay ca bàyyi ñu yéeg bi ñu yéegee nag papa Ndiaye Thiou suma xarit c'est mon ami c'est mon frère daf ma bëgg ndax moom moom nongoloo démbal te moom a njëkk papa Ndiaye moom a njëkk a solal jasñeer wax dëgg yàlla mhm. boobu man kenn xaw ma boobu mu ngi feccal nongoloo mhm. mu doon ko baax après ma fekkee wàcc rek boobu bi may dem soirée pap ay 4 heures et quelque jot na mhm. ñun dañoo guddee dem dañuy dem sax soirée bi mu ngi doog a mu ngi waaj tas mhm. bi ñu àggee noonu rek après si la a xaar rek ma mhm. bi porte bi kenn nekku demee léegi videur bi nag attaqué ma quoi foofu laa fi noonu laa fi demee quoi rek d' accord bi attaqué la euh, euh, ci yan anam la la attaqué waaye ci am anam mooy cinéma dama jékki rek gis ko mu ne bërit man yéeg naa sax ba gars yi tëggkat yi ñoom Baye Demba Baye Demba daf ma bëgg mhm. ñoom Moussa Diouf sama mag daf ma bëgg gars yi dañ may bëggi mhm. ñu si kaw scène bi ak musiciens yi ba ci Pape Diouf daf may bëggi mais après man jàpp naa ne gis nañ ma ñoom ñëpp mhm. mais ni waa ji jëwee rek rek tartafuma ma it après public baa ngi may xool ma xam ne mhm. ma laal ko benn pied nag mu dem quoi. Mhm. mais xam naa ne moom ëpp. doole waaw ndeysaan. Mhm. mais après ngi pour mu dem. ndax ni mu ñëwee rek rek attaqué ma rek maa i koy doon tegal benn pied pour mu dem. comme yooyu tafaa ngay doon naa ne mu ngi dem mais doole man ma sërëx. ndeysaan ma cant rek bu ma attaqué ñëpp ñëw song Pape Diouf daw ñëw eh eh eh mais yooyu yëpp waaw cant rek. waaw après si laa toogee gars yi ne ma caat no may may leen ma toog tuuti quoi ma xalaat. si laay xalaat man fii fu may dem war naa fu ma fi ñëwee man maa fu ñu may xeebe. Hmm. man yooyu laa toog hmm. la rek quoi man ma xam ne fii daam fu ma a dem fii nag waruma fee ñëw. Hmm. waaw waaw noonu rek la demee. d'accord bu coow li amee noonu sur l'instant est-ce que gars yi arrêté nañ musique bi pour jéem a lijjanti problème bi wala dañu continuer seen soirée. nañ dem ma ne ko noo xaaral rek ndax paap ñëw a wax ak man caat maa ngi jégalu ma ne ko père yow su ma grand nga amul benn problème après si laa demee hmm. mais après li rafet rek mooy caat seek su ma rak suma frère saa yoo ko yégee ñëwal waaw yàlla rek ko dul juum yow amal jàmm hmm. mais yooyu yëpp déggu ma ko après si laa jug dem ndax man du ma dem soirée bu ñu may téye hmm. man du rek laa ko seetaan ak déglu ko sama kër te mooy suñ kilifa. Mhm. soirée waale rek laay dem. Mhm. jamono yuñ toll nii. Mhm. waale mu mel ni sax avant nga yéeg ci scène bi ci sa benn interview yaa ngi doon wax ni man waale rek laa bëgg. waaw est-ce que tamit jàppoo ni loolu noonu tamit mën na. non mbay daf ma laaj xam nga mbay. Kouthia daf ne yow. xanaa da ngaa bàyyi Waly Seck nga ñëw soirée Pape Diouf xam ñoom <laughs> dañuy jaxase <laughs> te Pape Diouf ak Waly ñoo bokk ndey ak baay Pape Diouf magi Waly la. man war naa ñëw soirée ndax su ma mag la mosuma def lu ñaaw. Mhm. mais démb li xew man su ma ñëw mu ne ma xanaa da bàyyi waale ma ko waali moo fi ne su ma rakk la su ma la. Mhm. li ma defal jërëtul xanaa da ngaa bàyyi waali. Mhm. man war naa baali Pape Diouf war naa baali Sidi Diop war naa baali ku ne d'accord waaye man seede yàlla fi ma war a toog rek laa war a toog waratuma dem fenn. ku dul si waali Seck. d'accord Wally di ci man rek. d'accord ndax moo ma yëg moo ma bëgg. d'accord te maa ko bëgg. d'accord ñu gis bi loolu xewee daanaka vidéo yi gën a fuité. mooy vidéo yi nga xam ne yaa ngi nekk ci biti euh, di saaga Euh, est-ce que mën nga ñu indil ay leeral ci loolu. waaw loolu boobu loolu sax du ma sori boobu dama loolu dama juum ndax ñi ma dama génn rek am ko wax daal di naa daal ne am fu mu waxee quoi Pape ma ne ko waaw yaa Pape Diouf yéen waaw waaw waaw yàlla na. comprendre naa man. Mhm. mag la sax. maa ngi mhm. koy jégalu baax baax. Mhm. ko jégalu bu baax ndax suma mag la xaadim rakkam daf maa bëgg. Pape Diouf maa bëgg. Mhm. mais erreur mooy am rek. Mhm. jumte mooy kër sëñ bi laa ñëw toog nii. Mhm. muy sama frère. bëgg Serigne Saliou lool. ma ñëw mu sañ seen ma li ma sol lépp moom ma ko solal. d'accord te mu ngi wax ak man wax ju rafet. nit rafetal lépp. yow yaa bëgg waali uh-huh. euh, xam nga man mënoon naa doon. laneen mais yàlla woykat la ma def. Mhm. mais nag lu ma ndaw ndaw ndaw nii mënuma doon ragal quoi. Mhm. waaw ndax aar bi ñu bi ñu nekk nii affaire showbiz la. Mhm. waaw. ndax boo ci defee une deux pas ay affaire mën nañ laa mais boo ci nekkee ba ragal doo dem. man nag mun naa am na ay frères yoo xam ne ñu ngi banlieue des Arts Guédiawaye marché bees Cheikh Wade croisement Sam. marché Sam ñaari boulangerie marché jeudi fiñ mi jàmm ma gën mën naa indi ñoo xam ne ñoo may waxal man du ma wax. mën naa tegal ñoo xam li ma doon def ñoo ma koy defal mais loolu dama juum mais dootuma génnati man kase. man kase dootuma su may génn ànd ak samay mbokk. ànd ak sumay rakk ànd ak sumay mag. bu dee la ñun ñëpp. boo xam ne li may def am naa ñu ma ko mën a defal ndax su ma rakk yeeg su ma ñi ma bokkal koñ ak ñëpp a mer. samay soppe. ay ñi bëgg Pape Diouf sax dañoo mer ci lii. Mhm. waaw. Mhm. ñëpp a découragé wu nag lii di rafetul. Mhm. du lu rafet. dëgg yàlla noonu rek la demee quoi. mel ni sànq pour en man maa ngi jégalu ba ndax maa fa dem nag. ku dem see fi jàmbur loo fa gis yow la. d' accord mu mel ni sànq say biir wax yaa ngi wax ni euh, Pape waroon na la saluer sax ni sama frère Thiat Seck. expliqué ah mais deful loolu bi soirée bi jeexee tamit woowu la amoo ci moom benn retour euh, euh, lan lan moo la ci métti en fait ci mbir mi. noonu maa ngi féex nii sant sëñ Tuubaa bu baax sant Sëriñ Fàllu sant sëñ Modou Si Dieng sant maam Cerno borom daaru gi màggal gi waaj a ñëw nii ñu waajal daaru mu si man sama xol a ngi feex man dartuma dara métteetuma mu mel ni mu mel ni kon yow amuloo problème ak Pape Diouf personnel non Pape Diouf nit ku baax la Pape Diouf nit ko baax la waaye li xew ci ñoom la jóge ñoom ñëpp nag léegi mën naa ko mën naa ah. wax ni est-ce que kon da jàpp ne problème label la non waaye Fall loolu daal seen biir la jóge quoi man daal ndax yéegal nañ fa ay ñuy way ay ñuy taasu yéeg ñuy way yéeg te ña fa yéeg ñëpp nag boo tuddee Youssou ndur nag foo jaar tudd caat. Mhm. léegi waykat bi dafa ñëw. moo war a wàcce woy war koo mbar mbopp ko rek ba ko. Mhm. njolli ko njololal ko rek. Mhm. <laughs> war ko waxtaane rek. xam naa ne waaw. te mën na mën nañ jàpp dama fay woy Waly Seck sax dama fay tudd Waly xam naa loolu la ñuy jàpp ak yooyu. <laughs> te bu ma yëgoon nag li nii ànd ak Pape Diouf ñun ñëpp suñu mag. yaay magu caat yaay magu waali sekk kan yàlla defal la jàmm. Mm-hmm. papa li ma waal jox xanaa gis nga ko de oto bi matériel. gis nga ko. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax pour ma yëg si kaw seenu jàmbur day am problème. man lu ma di defal teraanga dama koy wax. kon est-ce que jàppoon ni waali sekk mooy mooy déranger en fait. non waali waali waali waali day déranger man man man mbay caat sekk sax may déranger waali caat sekk fi ne ñoo bokk ndey ak baay coon sekk Mm-hmm. man rek maa fi nekk. Mm-hmm. man mi muy jàppale sax am na ay frères yu moom a merewaale ndax man. Mm-hmm. te waale ñëpp la teral may na ñëpp oto. ay rakam ak defal na leen lu ne. waale nit ku baax la. man sama bopp laa fi nekkal. man dama gëm sama bopp dama war a téye suba. man xeexalu ma waale xeexalu ma demba xeexalu ma sàmba sama bopp laay xeexal mais waale bu defalee teraanga da koy wax. ku la defal lu baax da koy wax rek. kon daal da jàpp ni mbir mi affaire u dafay am parce que niñ la gën a ràññee ci chaîne Wally tey nga ñëw fee moo waral jaloux boobu am ci biir. barke Serigne Touba doy na waar daal man daal fi ne nii. Mhm. sama xol sedd na kontaan naa baab nit ku baax la ñu koy liggéeyal nit ñu baax la Demba waar ku baax. bàyyi Demba Ndiir aw ma sa fay yàlla na yàlla defal jàpp. ndax benn instant Demba ngi jeex mbir mi. naan ma caat ndànk rek la may xoole nongolo rek la may xoole mhm. mhm. magam mbay gee fay bëgg ma lool mhm. riis ñaa bëgg ma seen waa kër ñëpp ma bëgg moo a bi ma bi dem ba laay seen rek ma naan ma nii ndànk Moussa Diouf ma mu may xool bët yërmande après laa koy seen mu may xool ma xam ne Moussa mii sax Moussa Diouf sama mag ronge ñaa ngi waaj a tuuru moom it waaye yàlla na jàmm yàgg musicien yi clavier ñoom ñëpp affaire bi neexu leen mu yi sey guitare affaire bi neexu leen musiciens yi kii batterie affaire bi neexu ko Baye Demba Ndir yàlla nga am jàmm mu Diouf yàlla nga am jàmm ak musicien Pape Diouf yëpp yàlla nañu am jàmm. mais bi mbir mi jeexee ba tey est-ce que déggante nga ci ak Pape Diouf. ma suba teel woo na ma. Matar woo na ma ku baax la. Mhm. waaw woo na ma waxtaan nañ mu ne Pape Diouf mu doon woo jotu jotul xam naa mu ngi lay woo léegi ma ne ko benn problème waaw mu rafet mais garaawul quoi. d'accord. tey sa frère di muy Waly Ballago. Mhm. ah parce que tey mën nañ la xaar baara mun di non tey sama rakk mooy joué soirée ma nàmp jox ko mu nàmp muy Boussa Seck. mu mm-hmm. awu Kumba Gawlo tey la la kaat. suba tey la kaat waaw. tey la kaat ñu ngi ci samedi. Mm-hmm. tey la kaat lañ ah. la lañ leen nekk. mars. ah le 4 mars. Mhm. Boussa mooy tëgg tey ñu bokk ndey ak baay fële ca Ravin damay dem dooleel ko jàppale ko soirée day teel a tàmbali ndax day doon genre gala mhm. dîner. teel a tàmbali ma nekk fa ba 3 heures pile. Mhm. mu jugee fa dem Waali. tey Waali ba ku bëgg a seetaan caat ñu jox ko micro ak niñ koy yégalee. tey nañ ma fekk Baara Mondi. tey bi tey leen ko dugal léegi si kanam. tey bu ma jugee ci Boussa sama rak. ci waali jalaajim almadi te su may dugg ci dañ may accueillir waali laaj saag bi saagu saagu malet bi waali saagu malet bi lay laaj dima baatare waaw ma woy ba mu neex sama xol sedd waali jox ma micro bi taxawee bi ci ginnaaw de waali micro bi muy woy la may jox ba jox may woy muy kontaan ma woy ba doyal sama xol féex mu laaj xaalis malet bi dima baatare rek xam naa ne sax mun naa beneen oto génn fa sax <laughs> daa mel ni daal su ma déggee ni ngay waxee daa mel ni. Mhm. Euh, cër bi nga am ci waale amoo ko fee ci Pape Diouf. amoo ko fenn amoo ci ko ci kenn waykat yi ma gis. <laughs> yi nga xam dañu leen dégg xanaa si ñi ma doon woyal simbu laa koy am. Mhm. ak Mbapat ñoom Baye Cheikh Amar Sy Moussa Yaay Dior Badou sama rakk. Mhm. ay ñoom Petit La. Alem Boub Akassa sama rakk. waykat yu ndaw yi daal si ñoom laa koy amee sama xarit yi ma àndandoo depuis démb. si ñooñu laa koy amee. d'accord waaw mu ngi noonu ah moo nekkoon sunu sunu sunu Euh, moom la ñu daraloon fii. Euh, tey ban message ngay lancé ak lan ngay wax sa fans yi nga xamante ni mbir mi métti na leen lool. soppee daal mooy nga xamante ne tey fii lay déparé Amar. délégué. délégué Amar tey këram laay déparé barke sëñ Tuubaa ñu dem ca ja képp kuy bëggee caat tey dama fekk almadi ca Waalija maa nag délégué Amar ak petit. petit ku baax c'est mon ami c'est mon frère moom yére yu bëri la ma jox délégué daa génn yére yu bëri di ma jox petit teg ci ay yére moo tax ñi bëgg waale ba dëgër ndax ku laal ku laal caat dañ lay laal barke Serigne Bamba maa ngi nii maris gars yi tey su ma jugee rafet sama rak ñi ma bokkal ndeg bàyyi ma nàmp jox ko mu nàmp bu sekk gala dina lay tëgg day teel a tàmbali bu fa nekkee ba 3 heures et fii laay ñëw ànd ak délégué Amar ak petit Idi Baro Mbay Dollar ba ci guy gi àndandoo ma demee ba waali génn malet bi teg mm-hmm. wóolu leen ma caat waay <laughs> eh, wóolu leen ma caat waay maa ko bëgg waaye na ñëw ma neex si kaw scène bi. jooy ba sama xol sedd nag ma doog a ma jooy bu ma dina ma woo eh, bala maa way dinaa jooy ba sama xol sedd. sedd yàlla. ndeysaan rek ma doog a way. Mm-hmm. tey ba si kanam yàlla na yàlla defal jàmm képp mooy bëgg a fekk ma baara moo tey. Mm-hmm. képp ku may bëggee fekk ma ravin soirée bu sa sekk sama rak suñ paree àndandoo dem waali sekk ja bu neexee yàlla. Mm-hmm. yàlla na jàmm yàgg. allahumma amin jaajëf mu ngi noonu ah moom la ñu dalaloon fii tey. mu ngi ñëw rek. Ah, mu ngi baax na ah, Sidi a ngi ñëw. waaw fi mu doon ay tey ay waay réew mi yëngu na ay délégué a mar baax na daal ba ci kanam. mu ngi noonu ah di nuyu di nuyu sama frère délégué. délégué moom tamit vraiment di ko nuyu bu baax a baax. Euh, day jàpp ci liggéey bi. délégué ku ay délégué ku laal Thiat Seck taalibe taalibe ku laal waale mu laal la. ah, ah, ah waaw Sénégal buzz <laughs> waaw Sénégal buzz gi nii. waaye yow. <laughs> tey daal vraiment macha allah quoi. di am contentement aussi di leen jox yeneen di daje di leen jox rendez-vous. te nag site bu ñëw rek damay changé yére délégué Amar daf bu ñëw rek mën na ko. lu ma sol du ko sol. doole yamul mën na ko <laughs> <laughs> yàlla na jàmm man su ma déggee rek sama xel dem Cheikh Amar. ndeysaan ñëpp la. yàlla na ko yàlla yëkkati. yàlla na am mhm. yàlla na téeméeraat. ndax li muy def jumaay Touba di ko def Touba. Mhm. kooku jar naa ñaanal seede yàlla Cheikh yàlla na ko yàlla defal jàmm. xaw ma ko dama koy séen rek. Mhm. waaye su ma xamee délégué Amar xam naa Cheikh Amar. ñëpp ñëpp te Cheikh xam naa ne mu ngi may seetaan. Mhm. mu doon suñu papa doon suñu bàyyi doon suñu lépp. Mhm. mu ngi may xam waaye man xaw ma ko. waaye man si télé bi rek laa ko gis mu def teraanga def lu baax. ba ka ba ba ko Pape Diouf di waaye la barki démb. këram anniversaire am xaw ma salaam. jërë ngeen jëf gars yi mu ngi noonu di jox yi rendez-vous léegi incha allah baar mu di bu soobee sunu borom jaa ngeen jëf.